voilà ñoo ngi nii ngeen gis nit ñi fi ñew yépp voilà sëñ Assane Mbacke ngi ni ñëpp ngi fi waaw Assane xam naa ne dafa jaaxle parce que ni muy xoolee nii euh, lu ko jaaxal la gis tey voilà kon daal gis ngeen li nga xamante ni moom moo xew fii Almadi fii ci kër euh, Maymouna Bousso Maymouna Bousso d'ailleurs ma nga ne la ñuy seen mu taxaw ak jaaxle voilà moom ak jëkkëram ngeen gis ko nele mu taxaw nele

mais comme am nañ occasion ni pour wan leen li nga xamante ni moom fi am voilà sëñ Assane Mbacke tamit mi ngi nii ñoo ngi koy xool mu ñëw croisé ay y mu leer ko ni am na lu ko naqari koy ñaan rek mu ñaanal yalla may mun a may ko xol bu voilà kon voilà li ngeen di gis yëpp Ben bize gideceğim. Ben eğitim oynatayım. Eğitim oynatayım.